numéro France nekk fii Sénégal di woot di woote bëri na fi de na fi lool ñoo xam ni wilaay Sénégal gii la ñu nekk seen whatsapp yëpp ay numéro États-Unis la wala numéro euh, Amérique wala numéro fekk mosuñoo dem dañ leen koo lijjantil voilà te te te euh, fii ci Sénégal il faut dire que nag cybercrime ñu ngi def liggéey bu am solo am solo ci démonter les réseaux de euh, cybercriminalité yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk fii ci réew mi lu ci ëpp nag ay ñàkk lay faral di doon mais néanmoins rek na nit ñi gën a far lu gën a bàyyiwaat seen xel ni lépp lu virtuel tant que tegoo ci sa bët. bàyyi <laughs> euh, ba am ci lu la leer ndax nag nit itam doo jël sa xaalis rek di ko euh, investir comme ça à l'aveuglette yaa ngi commerce di daan sa doole yàlla ngi lay jàpp ci rek ba am lu ko gën. mais euh, Samuel Eto'o mi nga xamante ni waa Cameroun na ngi jooy ay yëf ci moom nga ne yow da nga bëgg mu jàppale. yow doomu Sénégal ah dëgg la. bu doon El Hadj Diouf ñu ne waaw doomu réew mi la mais balaa Samuel Eto'o jàppale Sénégal du jàppale Yaoundé ga mu bàyyee ko ah il faut dire le il faut appeler le chat par le chat en capot Samuel Eto'o mu ca Cameroun balaa moo jàppale waa Dakar du jàppale waa Yaoundé franchement. ah. gars yi gars yi wala waa Cocody Cocody moom. gars yi ñu ngi yeneen xalaat yoo xam ne sax. Mm-hmm. Facebook yaa ngi dem ci drogue baare. Mm-hmm. waaw gars yi nañ xalaat yoo xam ne. Mm-hmm. taluñ Facebook quoi. franchement parle. donc nag gars yi yeewu rek. gën a muus. noonu la demee. Hmm, Aïcha Fall jërëjëf la retrouver lundi pro Fall na xale yi nee nañ jeudi bi mënul ñàkk. mënta ñàkk ko programme. waaw bu <laughs> soobee yàlla ci programme fexe ba dugal ko ci programme bi. dama ko bëgg lu mu xat xat man fii laa bokk. Hmm. dinañ fexe ba dugal ko lu mu xat xat rek incha allah. Hmm. Aïcha kon mën waat Ndiaga jeudi incha allah yeneen chronique yi jëm ci wàllu mas Mouhamed mën nañoo xool kàpp tuuti rek. kàppoo gi nee na kaana nee na kaana du bàyyi. kaana du bàyyi waaw kaana du bàyyi bandi du xees el capo yi kay jantal. mais man bandi laa te dama xees de. yow yow yow da xees. bandi du weex kon. bandi du weex. bandi du bandi doon africain. Mm-hmm. bandi day commencé maa la wax lii. Ah, bandi soixante quinze lay tàmbalee. voilà di faral di yor soixante quinze si poosam. waaw ah, pare yor soixante quinze si poosam. am <laughs> na solo donc noonu la demee. dina doon ni tey kaan e ngeen am du yomb de. Mm. waaw ah, incha allah. mais Mouhamed man sama question peut-être dafay nekk ci transition bu rapide bi Kàppo def ko xam Kàppo peut-être fële ca maison ba mu nekk. on mm. nous disait que euh, technicien euh, euh, vidéo la. Mm. ñu jékki-jékki gis ko mu nekk acteur jékki-jékki waat gis ko mu bëgg a nekk chanteur nu mu demee noonu. Euh, waaw comme li nga wax maa ngi Evenprod en tant que monteur. papa ba ngay nekk fii sax yaa ngi rab. bi may nekk fii maa ngi rab donc fii laa jógee dem Evenprod. Mhm. nekk naa fi monteur joué naa fi ay per jigal ma leen ñuy nuyu de passage. Mhm. xam nga may na ma fi ay chance joué naa fi ay concert Miss Labado tout ça. dëgg la suñu youtube xam nga et puis comme li ngay wax rek xam nga comme li ngay wax kaana day ngarale quoi. waaw cest à day gën a wóor fi réew mi toll. nga def lii def lii def lii def lii au cas où lii doxul nga fii donc noonu la demee par par par comme li ñuy wax figuration lañ defee sinema après ñu def ko mu neex réalisateur bi mu développé personnage bi mm. donc noonu la demee après bi mu ñu jëlee aussi ci ci série bi mu defa mu jox ñu rôlu rappeur xam nga donc loolu tamit avantage la si ñun fii ko dañ doon rap donc bu ñu joxee rôlu rôlu rappeur dafay dafay gën a booster ñun suñu liggéey bi nga xam ne si lañ nekkoon rek la preuve avant infidèle ñu ngi woon sur YouTube ay deux cent abonnés actuellement ñu ngi ci ay quarante cinq mille donc loolu noonu yëpp je pense que ni euh, film bi am na si wàll te xam nga bu fekkoon aussi dañu yor beneen rôle bu dul rap ci film bi amaana mën na mën na bañ a am tamit euh, kii bii mu am mais sant yàlla rek di voilà loolu la rek. Hmm. particularité bi nga am par rapport ak. Euh, acting acteur yu yu yu yu hmm. mooy que ni. da nga ñëw ak ay ay termes yu bees. ay mhm. kaana du xalaat. Mhm. kaana du bàyyi damay dégg naan ti ti ti lan. ti kone ba pare ah, jikko undu undu dëgg la andi ci ci ci ci ci série kii bi si baax xam nga xam nga def si baax nga nga ñëw naturellement parce que je pense cinéma avant tout naturel la man dama jaar si lu bëri dama jaar si ay ndongo daara laxasaay nekk Baye Fall chicorien xam nga jaar ci mbedd quoi tu vois donc euh, dina am yoo xamante ne nii mu ngi daw si mbedd mi dafa neex mais gars yi xamuñ ko. Mhm. donc tey da nga leen koy da xool nan nga leen koy placer rek comme ni ngeen ñi defee ay placement produit xool nooy placer sa produit xool nooy defee say affaire mu dem say marque tout ça nga jéem a xool noo koy dugalee et puis ban langage nga ko mën a waxee ba gars yi rek parce que tout temps teg und tamit il faut nga xaw a comique. Mhm. pour que sénégalais au moins mën a am leneen loo xamante ne nii voilà dinañ la ñeme à cause de parce que xam nañ ni kaana ay xànjoo moo bëri rek mais tapet la la preuve ñi mu jot a raagal yëpp dañ ko wàcce ci ci ci ci film bi donc noonu la fa demee rek ah. waaye mhm. faut mhm. Mhm. par exemple euh, Capo la mais euh, nom d'artiste bi parce que damay gis MTN gis dégg ñu lay woowee Capo ñaar yëpp ngay maintien wala euh, bii fii la bee fee. waaw léegi moom damaa décider maintenir ñaar yëpp. waaw parce que comme Capo rappeur la MTN rappeur la. mën nañ boole ñaari quoi genre euh, mën nañ mën nañ rap gars yi gis MTM en même temps gis Kapo parce que am na ñoo xam ni Kapo lañ fiil xamuñ sax MTM tu vois donc ñooñu noonu aussi pour ne pas nga bañ leen perte mën nga leen a nga leen a téye en même temps day tax rek nga indi sa yëfu bopp tu donc noonu la demee dañu bëgg dañu bëgg fusionner ñaari après xool lu ñu si yàlla di may rek. Mm. kon mën nañ jàpp ni daal euh, nom d'artiste beeg nom de nom d'artiste bi Capo MT. MTM Capo MTM Capo. MTM Capo waaye Mohamed de Messenger. Hmm. parce que MTM mooy Mohamed de Messenger Mohamed laa tudd. donc euh, waaw la message donc bi may rab ba su ma def son boo xam ni égo trip la. ñoo di taxaw maa fi dàqali maa def lii comme ni rappeurs yi di def. Hmm. damay préférer chaque jour di def ay thèmes. di def ay messages ay trucs yu demee noonu. donc loolu moo indi MTM bi kàppo bi dafa xaw a teg comédie donc ñu bëgg a boole ñaari yi je pense que message bi war na mën a gën a gaaw a jàll su ci gars yi mënee reetaan mm-hmm. message par exemple message boo doon joxe nii message tey euh, ban message lay doon ci ci ci ci rap. ci quoi comme genre rappeurs yi ni ñuy joxe. comme message yi ngay faral di joxe. waaw bëri na. bëri may benn rek. nga may la benn. Ah. ok ndax yàlla dina ma baal. moo doon sama laaj bi may tëdd lalu hôpital. ndax mawti dina ma tal ordre de mission bi ka laaw buur bi digal ma tëdd di xalaat man fi mën nar a tëddaat ci wéet ci xataay ak fu ma nar a mu jaat sama bàmmeel ku koy gas ban imam moo may suul su desu lu dul dugal est-ce que suuf si du ma suur gaay di dem wane ginnaaw ma dégg ay réer yu may gane di ñëw ndaki rëccu dina fekk sama jëf wees li nga suma mënoon wax ak ñi fi war a des ne ko nii la nee la dëgg-dëgg këru àddunaay bàmmeel ma ne ko xàmmeel ràññeel jooy bu bëri daf may sonal dema ñaanal soo xamoon kañ ngay dee di jaamu yàlla bañ koo fàtte noonu la genre message yooyu la di def après voilà hmm. kaana dëgg Danemark lay dëkk. <laughs> Oh, nga ni kaana dëgg Danemark hmm, sant Diallo. sant Diallo ah. Liberté 4 mbaa 5. sant Diop. non Diallo. kaana dëgg jaaxal bu dee Sénégal fii kaana dëgg Liberté 5 lay dëkk sant Diop. ah, ah mais jëlal sax man yooyu garaaw la man moom. garaawul mais mais euh, euh, Kapo euh. yaa ngi koy wax léegi rab bi peut-être passion la da nga ko yàgg def parce qu'on m'a dit que depuis nekk fii yaa ko doon def aujourd'hui est-ce que tu penses vraiment faire carrière là-dessus ou c'est juste pour peut-être combler passion bi nga xamante ni moom nga moom nga mësa am pour la musique waaw parce que dama koy wax man rap musique moo tax ma def infographie parce que dama bëggoon tey mën a defal samay bopp samay réalisation vidéo tout ça donc dama ko bëgg quoi 2007 laa commencé ci hip hop di def li nga xam ni mooy break dance def break dance ba 2015 si laay soo a dugg si rab bu ma demoon tamit ba nga xam ni instant bi mënatuma rap carrément dinaa xool leneen lu ma mënta def monter label de voilà son video tout ça pour ba léegi di liggéeyal rab même bu fekkee taxawatuñ ci ci ci seen yi di yor micro. Mhm. mais ba léegi di liggéeyal ci ci rap quoi loolu la rek ci à dire que man moom hip hop dama ko feel daf ma neex moom laay gën a use moom lay gën a déglu. Mhm. donc euh, loolu la dama koy continuer di def ba lu ma si am rek. ani ani bi euh, euh, out of. out of law ñu ngi fi xam nga ma leen ñuy nuyuwaale de passage. kenn da nga bàyyi wala dañ la génne. génne fan. groupe bi damay laaj rek xam nga man xaw ma man damay laaj yow loolu nga génne ba non génnuma gars yi déjà bi may ñëw dañu mënul woon ñëw ñun ñëpp mais maa ngi bàyyi Malka Pone sama gàlle bu bees yi yow kese la walla ñoom ak coxa maa ngi naan ñoom ak coxali bi ren ñoom ak euh, euh, out of love yi la non lii nii di waajal c'est-à-dire que projet solo Capo la MTM Capo kon da nga démarqué wu su la déggee non du démarqué wu moom laa lay xam nga la preuve si si si clip bi non non dawuma wax xam nga. c'est-à-dire da ngeen déglu leen. xaaral du reculer yow xaw ma Danemark xaw ma Portugal dinaa <laughs> dama bëgg ngeen xam leen mooy balaa ma doon daw wax dara xew. Mm. tu vois mais dara xewul sortie yi may mujj def yëpp mag gars yi ñooy ànd on était trois defoon nañu fi émission ak Zeka Fama ñun ñett ñoo fi ñëwoon mais kenn ki melokaan instant bii mu ngi Valence. Mm. dem def joobam man ak Malka Pone ñoo fi nekk di joob. mais tolluwaay période boobu nee nañ da nga yëg succès de daal yëg nga succès bëgg bëgg gàddu bës yow kese nga tàllalaale. non Bito xanaa ñëw yow ak Bito euh, garde corps kii. moo leen moo ba ci mm-hmm. yow ak Bito garde ci biti xam yooyu yëpp. Ah, nga ñëw laaj café génn yow bi ñuy démarrer sax da nga ne doot doot ñëw tànk tooguñ ba pare. mu ne fii dafa tàng. kaara xalaat. Euh, gars yi wuy leen ma Sénégalais yi bu leen déglu cokali reen yi maa woon ci ci maam biram maa woon si maam biram ci suuf montage toog di waxtaan. waaw man ak awurloo yi dara xewul maa ngi leen bàyyi sama gàlle maa ngi leen di ziar bu wér a wér a wér de passage donc job bi mu ngi nice surtout malkapone parce que yombul ngay defandoog nit dara yàlla njëkk la si may ñu xam la donc mënoon na ci siisu mais sérieusement man awma permis mais bu ñu waree voyager day bàyyi jabam moo ñuy dawalal ba fu ñu mënti dem ba nii chaque jour ñooy rabandoo ñoo defandoo lépp ensemble nii nii mu ngi enregistré projet moom bi muy prévoir projet am sax man kenn xamaguma tu vois donc foofu amul kii moo beddeeku wala lii wala laa man awma xarit bu xarit bu bees ñi ma doon àndal démb laay àndal ba tey. mais daal def nga ñenn ñi chauffeur ñeneen ñi nga. <laughs> yóbbu leen France ci kii cokali bren la de. na kenn ki Malka <laughs> xam na moom kaana la te dama ko wóolu ndax prudence bi lay teg. Hmm. donc euh, noonu la demee rek yàlla def na man aw ma permis waaye ma bàyyi ko mu seere. kaana dëgg day am permis nag. mais xam nga lu jot yomb kaana dëgg dañ koy dawalal kaana du dawal xam nga man noonu la demee. Hmm. donc euh, voilà quoi. day toog si ginnaaw laal kilim gars yi cokk en haut bi. Mm. non tu es bon. Nafi Aïcha Mouhamed tànn euh. ñu bàyyi ko mu soufflé tuuti. dinañu ñëwaat ci moom bu ñu